yàgg si biir la ñu jël. 1 million CFA moo nekk nii. yàgg si biir. moo nekk nii dañ ko wecci def ko ay 2000 2000 ay 1000 francs 1000 francs fas yéene jokk jaamu yàlla yi def addee yonent bi yàlla defal ñu jàmm ak taw feex xéewal yokk ba yëg yàlla sàmm ñu aar ñu defal lépp ñëpp jàmm fas yéene ko jox jaamu yàlla yi ñu mun ci dépense su barkeelu ci da ci am solo macha allah moo nekk noonu lii fii takk 100000 francs la moo nekk ci. gis nga dix mille vingt mille gis nga vingt mille euh, quarante mille soixante mille soixante dix mille quatre vingt quatre vingt dix cent lii cent mille la d' abord cent mille moo nekk noonu cent mille moo nekk ni euh, cent mille franc moo nekk noonu gis nga cent mille franc aussi moo nekk ni cent mille gis nga gis nga deux cent mille la noonu deux cent mille a ngi noonu fii tamit trois maanaam euh, trois cent mille a ngi nii gis nga deux mille deux mille yi boobu deux mille deux mille yi moo mu mot dix gis nga trois cent mille nga ko quatre quatre cent mille a ngi noonu quatre cent mille a ngi loolu moo affaire yi 500 bi nag noonu nga ko 2000 2000 litres yi 500 mille nga ko. cinq cent mille gis nga ko six cent mille six cent mille six cent mille gis nga ko sept cent mille sept cent mille su ko mille franc mille franc ba mu mot dix muy dix mille ñaata la huit cent sept cent waaw huit cent huit cent huit cent ngi noonu neuf cent huit cent ngi noonu huit cent mille ngi noonu jarul lan moo nekkoon 900. waaw 900 waaw 900 kon la. ni mu ko compté nga wecc ko mu nekk 1 million. la quoi. léegi nag moo ñëw ko. deux mille deux mille dama ko waroon def côté bi wala. da nga koy non da nga koy tax xam nga da nga ko noonu. ku am mille franc wër sa kaw la ku am deux mille tamit wër sa kaw la ku am cinq mille tamit wër sa kaw la voilà. jox ko jaamu yàlla yi bokk ko ak ñoom addiya addiya yonente bi sallallahu bokk ak jaamu yàlla yi mu ngi noonu mm-hmm. mu ngi noonu bokk mm-hmm. addiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ak jaamu yàlla yi pour mu tas macha allah léegi nag lii ay 5000 5000 la aussi dix vingt trente quarante cinquante soixante soixante dix soixante quinze mille lii def ko fii lii ci xaaj bi la jëm. macha allah. macha allah. lépp dañ ko defar ngir ngir yàlla yonente bi rek defuñu ko ngir gis tal defuñu ko ngir wane ko ñuy daa defe naa ne suñu jikku la suñu jikku la yàgg nañ di ko def saa su ne dañu koy def dañu koy def ci weeru koor gi dañu koy def saa su ne di dimbali jaamu yàlla yi lu ñu am bokkam jaamu yàlla yi. waaw yàlla nangu ñu lépp ñu ci bëgg yàlla defal ñu ci jàmm ak taw. am na solo am na solo macha allah seddal ko jaamu jaamu allahu waaw un million allahu waaw un million cinq baax tas ba ay mille francs ay deux mille ak ay cinq mille francs pour jox ko jaamu jaamu bëti neexul non bëti neexul allah waahid allah waahid est-ce que الله واحد يا رب الله واحد يا رب الله واحد الله الله واحد So, hold that, don't forget. Terrible, sir. Thierno Moule Sow. Sow the king of the king. Thierno Moule Sow. lii nag dañu koy def bokk ko ak yéen 1 million laa jël wecc ko. waxtaan jaamu yàlla yi dama doxoon istal ngir dara ndax ci laa def waaw dama ko def addi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtaan jaamu yàlla loolu moo tax ma def ko def ma ko ngir wanewu ngir gistal waaw ko def rek ngir addi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne un million tas ko bokk ak jaamu yàlla yi waaw ci kattanu yàlla loolu laa ko defee defe ma ko ngir wanewu ngir dara waaw defe naa ne man wane naa sama bopp àdduna bi yëpp xam nañ ma waaye dañu ko def ngir bokk ak jaamu yàlla yi ah waaw kon bismillahi rahmaani rahim

barkeel

Sövmüle. Terrible. Terrible. The king of the king. Terrible. Sövmüle. Sövmüle. Hey, soxna si loolu li jaama dama Doktor. ñaan leen ñaan leen ñaan leen ñaan leen amiin amiin waaw gàcce sama sëriñ waa Thierno Moule ngi ci papaay jinne yi tey sew mu le xale yi ñoo des tey borom jamono taxaw leen noonu Thank est-ce que dañoo wax booy yi ci koñ bi ñu woon nee na waa koñ bi ñu ñëw. ñoom ñoom ñu ñu jox ba pare ñu. ñu jox ba pare rek la ñu war a xam ne. non non dafa dafa des. dañu boole ñu. lan la. Mm-hmm. Mm-hmm. sincère remoulation xalifa général bi waaw waaye seen seen mbokk yi waa koñ ba nañu tudd Thank you.

ma ne ko dundee la nii la ba yeewu. kër Thierno Moule rek la. Thierno Moule. Seydou Moule. Thierno Moule. Sow Thierno Moule. Sow Thierno Moule. Sow the king of the king. Thierno Moule Sow. Soutien soutien zikara zikara zikara soutien soutien zikara zikara zikara zikara zikara daf leen naan daf leen naan rek sérieusement rek doucement doucement yéen ñëpp a yàq yéen ñëw na

Get

Allah Allah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 الله لا اله الا الله la la la la لا اله الا الله

xam nañu ko.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 la la la la Allah la ilaha illallah la ilaha illallah لا اله الا الله Allah Allah Bajeno Kamala Allah Allah Bajeno Kamala Allah Allah Bajeno Kamala Allah Allah Bajeno Kamala Allah Allah Bajeno Kamala Allah Kamala, Allah, Allah, Allah, Bajendo, Allah, Allah, Bajendo, Bajendo, Kamala, Bajendo.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

illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا لا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 anglais yéen ñaar dem leen yow anglais I'm not the dem na si rang bi. yéen ñaar dem leen. Yeah.

ah. king of the king, down on with a song. The king of the king, down on with a song. The king of the king, down on with a song. Papa Jinai, Papa Jinai. Papa Jinai. Papa Jinai.

dégg Jaara mooy sa yaay. doomu Gaynde Gaynde la. doomu Gaynde Gaynde la. Jaara Mule Gaynde la. doomu Gaynde Gaynde la. Jaara Mule Gaynde la. Sujata Keita mooy sa maam. Jaara Mule Jaara Mule la Sow. doomu Kamara mooy sa yaay. the king of the king. the king of the king. Jaara Mule. the king of the king. Jaara Mule Sow. Jaara Mule Sow. Jaara Mule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. Thierno Moule Sow. papa yi sëñ ci papa yi jëmee. Thierno Moule Sow. Thank you.

doomu gaynde gaynde la. doomu gaynde gaynde la. doomu gaynde gaynde mooy sa doomu gaynde gaynde la. Mariama Kamara mooy mooy sa sa yaay. jaamu gaynde gaynde la jaamu gaynde gaynde la. jaamu gaynde gaynde la. doomu gaynde gaynde la doomu gaynde gaynde la doomu gaynde gaynde la sang bi siyaar na leen classe taxi bi taxi bi voilà. Thierno Moule la. doomu Doomu gaynde gaynde la doomu gaynde gaynde la doomu gaynde gaynde la Pape Baye